voilà donc euh, ñu bàyyi Coro mu développé li mu indi doore ko ak waa Ogi. waaw foofu lañ koy tàmbalee xat yi ku ne xam na ne hôpital jamono jii dafa bokk ci dundinu doomu aadama bu baax a baax ndax tawat gi fi ne tax na ba ñenn ci euh, internet yi daal nañ partagé ab vidéo boo xam ni dañoo wane carrément ni Ogi daal jamono ji urgence boobu boo fay dem dafay metti trop ndax en général ñu bari ambulance moo leen fa yóbbu te amaana su ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di malaat yi ñëwee dañuy daal di taxaw mel ni ñuy def que ñu def franc bu ko defee euh, mu mel ni rek fa nga xam ne moom moo di ci urgence ba dafa daal di xat torop torop torop rawatina sax bu fekkee ni malade dafa dafa yàkkamti pour bëgg a dugg nee nañ dina toog ay waxtu wala ay diir yoo xam ne ni tey jii ko Charles di wane nii ci biir euh, vidéo bi buñ ko defee tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi daal nañ koy partagé daal nañ koy tamit euh, commenté comme ni ñu koy defee saa su ne am na ko ciy wax naan bu fekkee ni malade dafa ñëw sonn lool ndax dañ koy bàyyi moom mu jiitu dugg wala ci rang bi lay topp ba keroog muy egg fa mu fa mu fa mu jëm mm-hmm. donc moom loolu lay laajtee te muy naan bu fekkente ne daa war a taxaw xaar loolu doy waar la te autorité war nañ cee wax balaa bay di wéy mbuus ndax te tamit lu jar lu jar bakkan lamb comme ni ñu ko waxee ci am na tam ñuy ku wax naan semaine passée moom dem na fa te lu ko fa muy problème rénal moo ko fa yóbboon te urgence ba la dem mais nee na bi mu demee presque xaarloo boobu ñu ko fa xaarloo moom koy confirmer moo tax dafa mujjee ëlbatiku dem ñibbi euh, nekk ak métitam moo ko gënaloo nee na muy xaar xaar boobu te euh, ñi mu àndaloon dañoo génn di waxaat di waxaat ak ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer foofu mais dañu leen wax naan il faut ngeen patienter pour mu mën a dugg donc moom dafa mujjee retourner demaat ñibbi këram loolu nee na moo ko gën a sax muy muy lii tey mu ngi wax naan Euh, même bu dul urgence baak ñoom seen neenaan nañ dugg bu baax xoolaat biir hôpital bi xool toilette yi tout fépp foo xam ne ni tey malade war na koo jëfandikoo parce que nee na yemb yembul daal hôpital bi du lépp du lépp a yemb am na tam ku ci wax naan Sénégal moom hôpitaux yi euh, service d'urgence amu fa nee na à chaque fois danga naan service d'urgence te fekk na yow da ngay soxla yàkkamti te boo ñëwee amaana la nga la nga bëgg muy faju doo ko am à temps mm. ba tax na tey jii da ngay gis bu am fi une de temps keneen ñëw ci kawam ñu jël kooku dañu xool ñi gën a sonn ba tax na euh, ni ñu ko bëggee daal ameewul noonu am na tam kuy wax naan docteur moo manqué ci ci ci Sénégal parce que nee na booy xool euh, doxin doxat ñu koy waxee sax doxalinu école yi ak euh, lycée yi ak université yi tax na ba ndongo yi sawar suñ benn yoon pour suivre wàllum wàllum santé ba ak euh, jàng ba na muy métier et donc amatuñu pas-pas pour mën a suivre li nga xam ne moom moo di wàllu santé pour docteur yi mën a yokk ba tax lu mel noonu mën fee mën fee jógee ñoom daal daal nañ koy métti du daal dañ koy naqaru tey xam ne tamit ni autorité yi ci boppam ñoom ñoo ci war a jël seeni i seen i avant ba tax na ñi nga xam ne tam ñoom ñoo di doomu aadama yi mën a sentir seen bopp bu baax a baax bu ñu ci hôpitaux yi rawatina ku feebar dab nga war a daw ñëw ñëw urgence dafay mën a faju et ñoom daal ñu ngi sàkk pour ñu gën cee mën a sentir seen bopp le plus malheureux dans tout ça c' est que docteurs yi dañu manqué mais à côté yaa bari na ay euh, ñoo xamante ne dañ jàng médecine diplômé mm-hmm. mais dugaluñ leen ci ci fonction publique bi ba ñu mën a liggéey donc dangay am sa diplôme liggéeyoo à côté offre bi en fait moom moo mm-hmm. moom moo euh, demande bi moom moo ëpp offre bi mais euh, jëluñu leen en fait recruté wuñu leen autre chose au Sénégal a l' impression que ci boppam moom moo malade mm-hmm. bu weesoo image yi nga xamante ne moom nga ko wane rek dafay nasa ne moo di wér-gu-yaramu nit bi nga xamante ne ci euh, moment boobu daf ko soxla parce que ku ñu dem ba def la ci ambulance c'est que urgence am na mais également am na yeneen problème yoo xamante ne ñoom ci seen bopp ñu ngi koy dund donc comme tu l'as dit autorité ñoom ñoo war a jël les devants parce que seen politique euh, ci wàllum santé moom moo des ah, politique dafa lay ñëwee parce que politique boobu moo des parce que boo xoolee euh, normes yi OMS wax muy organisation mondiale de bi jëm si wàllu santé de la santé dafa ne askan par exemple boo jëlee benn askan wi euh, cent cinquante mille habitants war nañu am ku si nekk hôpital war nañu am benn hôpital mais Sénégal boo xoolee norme bi bu dee hôpital yi benn hôpital la ñu pour cinq cent quinze euh, virgule cinq cent quinze mille six cent six habitants euh, benn centre de santé pour cent cinquante et un mille cent quarante quatre benn poste de santé pour cent onze mille cent quarante quarante trois habitants gap bi dafa sori dèjà ju c'est-à-dire jumtuwaay yi mat amu fi boo duggee si biir euh, hôpital yooyu muy hôpitaux yi di centre de santé yi médecins yi matu fii wax nga ko sànq leneen amuñ accueil amuñ san accueil orientation loolu moo waral lii du accueil du orientation da dugg yow sax di seet si malade pour nga gisu déjà problème la amul kenn ku lay accueillir kenn ku lay orienté nga indi sa sa malade fee la ñuy toog di waxtaan dé wante dañuy toog di liimew il t'insulte boo waxee dañuy yaa fay ñaaw. yaa yaa yaa quelques jours am na benn benn texte benn article bu ma liir lire sur site internet waaye dañ ko yóbbu il s'agit de euh, Bill Boy. comment ça s'appelle ah, euh, euh. dafa dóor benn médecin fële même au bii la. Mm-hmm. lu tax problème yii. problème yii c'est bañ yóbbu bañ woon cas bii mais génn na mu nekk nii. Mm-hmm. alors coow yi faw tant que wuñ ko duñ dem. Mm-hmm. te ni nga ko waxee politique sanitaire yu moo doxul. non gis nga suñu hôpital yi. Mhm. maanaam bu la yàlla suturaalee ba demoo fa doo sax mën a xam li xew. yàlla yàlla may ñëpp ñu wér ci barke yonent bi. mais gis nga boo amee ku wéradi wala yow nga wéradi ba dem ci hôpital yi lenn ci hôpital yi. Mhm. ñi nekk senegal yëpp non non di nga am lu la naqari. parce que xam nga ñun ñun dafa am loo xam ne moo nu manqué mooy jox doomu aadama cër. Mhm. jox doomu aadama cër nga xam ne kii mbindeefum suñu boroom la nga yërëm ko jox ko cër bi nga xamante ne moom la ko yàlla jox te yàlla tax loolu moo nu manqué soo demee ci hôpital comme ni ko Assane waxee nga soxla fa non duñ la wax ak ñoom duñ la faale sooy wax ak ñoom kersa soo feebaree ci gën a garaaw mooy soo amul xaalis moom moom mari day taali moom ku fi feebar moom yàlla na la yàlla suñ borom suturaal may la xaalis mais boo feebaree fii te amoo xaalis dem hôpital non mar di tali kon ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàll woowu nañu yërëmaat nit ñi joxaat nit ñi ab cër te yàlla tax ku ci ku feebar sa sago jeex na parce que noonu bi gën a garaw ci àdduna mooy feebar kon boo feebaree dem ci béréb yi nga xamante ni fa la ñuy fajoo ñi nga xam ne ñoom ñooy faje nunu yërëm nit ñi te jéem na a faj te yàlla tax dafa am sama benn waay mus naa ko fi nettali nee na dafa dem ci benn réew ci réew tugal yi mu jékki-jékki rek yaram yu métti nee na mu dem foofu pour ñu xoolal ko yaramam mais nee na ni ñu ko accueillir ak ci yoon wi ñu ko teg moom bi ñu ko bi ñu ko mu ñëwee lu ma ëpp fukki médecin tiim nañ ko maanaam kii ci wàllu bët kii ci wàllu xol kii ci wàllu bopp kii ci wàllu yaram maanaam ñëpp di li composé doomu aadama ñu tiim ko kenn ku ne yor sa kaay di ko laaj di bind. mu pare ñu dem defal ko ordonnance téléphoné ca pharmacie ba ba nga xamante ni fa la dem war a jëlee garab yi turam nekk fa ak lépp ak ñu ne ko da ngay dem béréb sàngam nee na bi mu demee béréb sàngam dafa toog dafa jékki-jékki daan ne ko garab yi ak yii moom nga fi moom nga war a jël ñii nga koy jële ñii nga koy jële dans une semaine nga dikkaat mais nee na tellement dafa xala ak lim bàyyi Sénégal mu ne est-ce que lii sax mën naa ne toog kër nee bi semaine bi desee benn fan ñoom ñoo ko woo téléphone ne ko noo def naka sa yaram mbaa yaa ngi ci jàmm mbaa yaa ngi tane dañ doon la doon woo rek di la nemmeeku te it di la fàttaliwaale ne suba mooy sa rendez-vous pour nga ñëw. Mhm. mais ñun te réew moomu benn kon doomu yu ëpp ñaari senegal mais dara mayu leen ko nag lu dul organiser ak respecter doomu aadama. Mhm. suñu réew su tuuti si bu góor góorgóorlu woon. ku fi feebar di nga faju dinañ la accueillir accueil bu baax dinañ la teg ci yoon te dinañ la jox cër bi nga xam ne moo yell ci nit mais tant que joxante wuñu cër yi nga xamante ni moo yell ci nit yàlla jox ñu ko parce que yàlla moo jël engagement ne man yàlla maa teral doomu adama kon bu ñuy tedd teddal di lante ci suñu biir ngir nu mën a jëm ci kanam du yomb il faut ñu jox nit ñi ay cër yi nga xam ne moom lañ yelloon xadi noonu la jaaree sax daal di tëj boobu les ubbi nag daal di wax ci li nga xam ne nii jamono ji mi ngi def bu baax a baax fépp foo xool ci réseaux sociaux yi ko fay waxtaane muy ñaari conférence de presse yi nga xam ne ne am na fi ci semaine bii euh, mu nekk ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yor ngànk wàllum élection bi ñu génnee di xam ne rek nii ki nga xam ne moom moo di Karim Wade euh, yoon mayu ko mu bokk ci li nga xam ne ni moom moo di ci élection yi ñu dëgmal ci 2019 ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa PDS di Pape Karim bokk ñoom bi ñu génnee dañoo génn tam def seen conférence de presse ñëpp gis nañ ko ci kaw loolu tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi dañoo daal di partagé wane ci ay photo gis nga comme niñ ko Charles wane nii ci ñaari conférence de presse yooyu di laajte lii lan la ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu aadama yi gisee ak ban njariñ la am mm-hmm. ñu am na tam ñu ñu ci commenté ñu baree bare bari wax ci seen i seen doléance waxaale tam la nga xam ne ni moom lañ ci yaakaar am na ñuy wax naan lan moo fi jar lii alalu àdduna rek la mm-hmm. moo leen moo waral seen seen màttante bi gëjjante bi am na ñu ciy wax naan en tout cas moom njiitu réew mi Macky Sall Euh, dafa yaakaar ne jamono ji gañe na pare ci kaw euh, bi mu bu ma xee ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la war a taseel ci ci ci géewu politique gi euh, waaye bu mu yaakaar ne falu na ndax ñoom taxaw nañ temm pour bañ bañ mu faluwaat deuxième mandat am na ñu ci wax naan ñoom yi xam na na bu baax a baax li mu bëgg ñoom xam nañ ko mais duñ ko jàppale ci li mu bëgg donc ñoom dañoo taxaw seen kéemtulaay kàttan dinañ ko def ba galgal ko ñenn ci internet yi ñoom ñu ciy wax naan euh, booy xool ñaari conférence de presse yi fulla ak fayda yëkkatiwu ko te benn yoon doo ci dégg lenn loo xam ne nii dafa soxal askan yi mm-hmm. donc ay conférence de presse yoo xam ne nii c'est inutile te it ñoom la concerné ñoom géew politique gi ñoom la concerné te dañoo jàpp ne aussi dëgg génn fa te te tey dëgg dëgg dëgg moo moo fa waroon génn daal te dëgg génn fa benn yoon. ñoom la ñoo jàpp ne naam euh, nguur gi ah, ñi ñi ngànk wàllum élection génn nañu wax ci Karim Wade ak ñàkk euh, waaw boobu ñu ko boobu ñu rejeté mm-hmm. mais ñoom li ñu gis mooy euh, am na ci biir commentaire yi ñoo xam ne dañ naan waruñu ko woon a def parce que nii ak naa di expliquer na la tax waruñu ko woon def waaye tamit ci conférence de presse yi ñi nga xam ne ñoom ñëw di waa PDS am na ñu ciy génn di leen ŋàññi bu baax a baax di wax ne waruñu woon sax wax mm-hmm. parce que bu yoon nee nangam rek ñoom it dañoo war a d'accord ci lu yoon wax donc ñoom dañoo jàpp ne lépp politique moo ko lal euh, bu ñee waxee ak ñiy wax ñëpp politique moo ko lal te loolu soxalul euh, soxla soxalul askan wi te soxalul tamit Sénégal nee nañ bu sorti dee am kenn di ci génn ñoom waay politique yooyu nga xam ne sénégalais ñoom ñoo tax ñuy génn nañu génn wax ci dëkk bu metti bii nga xam ne ni tey ji ñu ngi koy dund ak lépp lépp loo xam ne soxal na leen ak loo xam ne tey mën naa jëmee dëkk bi kanam rawatina wàllum njàng meek wàllum faju geek lépp nee na soxal leen ñu génn ñoom fan yi moom média bi moom fépp di wax ci ay waxi yoo xam ne ni ay kasaw kasaw la ñoom daal daal noonu ko jàppee. moi je pense que yoon ne nangam nga nga respecté li yoon wax dafay fekk yoon doxal ko ci yoon. déjà donc euh, pour ñi naan que waa parti démocratique sénégalais waruñu woon def conférence de presse man je suis pas d'accord parce que bi ndogal dogal bi génnee déjà nit yi ñoom la ñu doon xaar parce que les gens ils ont besoin de savoir ndax Karim Wade moom mooy continuer di nekk seen candidat ou pas donc côté boobu fale ñu leeral ko autre chose également le fait que ñu rejeté candidature euh, Karim Wade ñu bari comprendre luñ déjà ñun journalistes yi sax bi ñu lañ bëtee xool kayit ko on avait du mal à comprendre ñoom ci yan base ñu ko teg côté boobu ñu ngi leen ci doon xaar ñoom ñu àddu pour peut-être euh, jéem a xool ñoom euh, yan recours la ñu nar a def bu ko defee ñu ñu euh, ñu xool nan la ñuy def ba continuer parce que ñoom déjà Karim la ñu tànn comme comme comme seen candidat voilà mm-hmm. bu fekkee am na yoon bu ñu mën a aw ba ñu valider ko pourquoi pas xar yi dañuy di tëj boobu daal di ibbi beneen bi la yoon dañuy daal di wax ci karimiste yi karimiste yi nag dañoo mere ki nga xam ne ni moom moo di Ahmed Aydara bi nekkee di média mhm. des média moom Ahmed Aydara ñoom dañoo jàpp ne dafa génn ngir rek gàkkal deru ki nga xam ne ni moom moo di Karim Wade gis nga comme ñoom ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko fësalee ni gàkkal ki nga xam ne ni moom moo di deru Karim wàdd comme wax ni dafa daf leen a bëgg a découragé ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di karimiste léegi bi ñu ko bi ñu ko fësalee nag ki nga xam ne nii ñoom ñooy ñoom ñooy karimiste ba tey ji dañ ko commenté daal di ciy wax seeni i bu baax a baax comme quoi dañoo wax ni moom ay dara dañoo jàpp ne dañ ko corrompre maanaam dañ ko am lu ñu ko buux daal tax na muy jël deru deru deru Karim wàdd ci kaw euh, génn bu mu génnoon daal ciy wax et tout léegi nag bi ñu ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo commenté ñoom dañoo xam ne ni Samuel Sarr ak ki nga xam ne moom moo di Marème Faye Sall ñoom ñoo nekk ci ginnaaw nee ñoom comprendre nañ bu baax li xew am na tam ñeneen ñu ci ñu ci ñu ciy commenté di wax naan Ahmed moom bu mu sonal boppam na xam ne ñoom karimiste yi dara du leen tax a dellu gannaaw Karim Wade mooy seen candidat tey mooy seen candidat ëllëg te mooy seen candidat candidat ginnaaw ëllëg donc ñoom kon na noppal boppam am na ñu ciy wax naan ñoom nañu jóg mobiliser wu te jëmale deux mille deux mille dix-neuf ndaxte euh, euh, retard weesuwul ay benn nit wax fe beneen nit wax fe la ñoom ñu koy nekk di tontu et tout tey amalu leen benn benn solo ndaxte moom mënta wax a wax wax ba décourager leen wala mu am lenn loo xam ne nii ñu ngi koy indi ci seeni militant am na tam ñuy wax naan euh, moom Ahmed Aïdara yoonam nekku ci waxu Karim Wade ak nguur gi et tout donc na ci noppi bu baax a baax a baax ndax ñoom Karim Wade lañ jusqu'à la mort am na tam ñu ci wax naan Macky Sall ak képp ku ko yaakaar ak képp koo xam ne nii tamit dangaa taq ci moom wala nga laale ci moom wala sax ngay séentu lu jóge ci moom nee na nga noppal sa bopp te xam ni ñoom seen bakkan ak seen xel ak seen xol ak seen i bët lépp Karim Wade la te incha allahu rabbi ñoom dañuy def le tout ba mu dugg si biir Sénégal donc ñoom dañoo jàpp ne ñenn ñi ci def ay sortie di wax wala ñu koy wax feneen ak ci télé ak ci rajo yi mm-hmm. nañu noppal seen bopp te xam ne mënuñu leen déstabiliser benn yoon Karim Wade mooy seen candidat tey moom mooy seen candidat ëllëg te moom lañu yaakaar te it day ñëw te day day defanteeg ñoom ci géew politique gi mm-hmm. cette fois-ci dans son rôle et li nga xamante ne moom la leen wax également moom la majorité journaliste yu bari wax c'est-à-dire cherchez-vous un autre candidat avant qu'il ne soit trop tard bu dee loolu la ñuy meree nit ci moom je pense dañuy mer ba sonn <laughs> meree nañu bari tout à l'heure je me demandais candidat avant qu'il ne soit trop tard. mais xanaa du loolu rek moo war a coow lii que moo ginnaaw. ak li ko jiiñ lépp. non am na nëbbatu nëbbatuwul day politique. il veut la mairie de Guédiawaye wax na ko nëbbu nëbbatuwul. te it wax bi mooy bu fekkente ne dañu ay lu corrompre ak ay ànd ak euh, nguur gi ak ñoom seen ñëpp xam nañ ne li ñu wax noonu nii la def. parce que yaakaar ci sama yaakaar man laay waxee en tant que Coro. Mhm. Ameth jegewul ah, wala laalewul ak ak fi nga xam ne ni moom moo di moom moo di nguur gi ku ne gis na ko foofu ca géej waaye ak nam fay. nam fa mel ak ak nam moom ko defee su politique moom bàyyi leen seen yëpp rek bu leen euh, euh, jéem a fetal bu leen jéem a takkal benn seen benn tànk ci biir politique moom lu ne mën na. jaay lu ne dëgg la waaye kon mu trahir géej waaye <laughs> ndax Alioune Sarr waaw léegi xam bu ñu tëjee euh, loolu dañuy daal di bu beneen bi léegi dañuy daal di def tukki nemmeeku nag dem ba ca euh, fële ca Italie. Mm-hmm. daal di seeti li nga xam ne moom moo di consulat bu Sénégal ba nekkee ca Milan consulat ba ñoom dañu dañu dañ gis na dañ ko wane nii mu daal di am tuuti incivisme. tuuti euh, waaw tuuti incivisme <laughs> mais daal ñi ko ñi ko ñi ko publier gis nga comme ni ñu ko waxee nii dañ ne. Euh, consulat wala ambassadeur bu mu mënti doon dafay dafay dafay représenter euh, waa tout un pays donc ñoom lañu la ñu jàpp mooy consulat Sénégal bii Sénégal rek lafa fa la fa toogal donc lu rëy la ci ñoom ba tax na tamit ñoom euh, commenté nañ ko bu baax a baax di wax naan ambassade Sénégal sax ba nekk Grande-Bretagne ca Londres nee na boo fa demee ñoom ña ngay jooy ci ak calte ak lenn loo xam ne ni tey jii ñoo ngi ko fay nemmee bu baax a baax am na ñu naan yi comportement tamit la ñu nekkee fii ci suñu réew donc bu fekkente ne dañuy tukki moom rek la ñuy dañuy yóbbaale te bu ñu fàttee tamit ni ñi ñi fay liggéey yi Sénégal fi leen jóge doog a doog dem foofu am na ñu ciy wax naan euh, ci biir consulat boo duggee ba ba nee dem ci toilette yi day mel ni sax foo xam ne lii ay mala ñoo fa ñoo fa war a nekk nee na dafa dafa dégueulasse ba nga xam ne ni tubaab bi sax ñoom à chaque ci dugg si da taf say bakkan wala ngay am leneen nooy def am na tam ñu ci wax naan xanaa ñi fay nekk amuñu ñu leen di baleel ñu leen di raxasal ak ñu leen di dégager poubelle di leen dégager mbalit yi et parce que lii dara dara jaru ko nee li ñu li ñu nekkee ni mën nañu ko yemale fii ci biir réew mi mais euh, c'est ñu ko yóbbu ci benn dëkk wax ma laa tubaab bi ba ciy jàppaat di gën a yeb et am nañ ñu ci wax naan euh, sunu euh, sunu lii rek la ñu wane sunu bopp rek la ñu wane parce que fii ci biir réew mi biir maire yi boo duggee da ngay gis ne salte ba fay nekk ak euh, na muy melokaan ba muy mel du du adéquat ak nit ñi sax di fa di fa nekk. donc bu ñu demee ba Italie ba consulat di ko mel wala ambassadeur ko biir ambassade yi di ko mel donc dañuy jàpp ne rek ñun sunu sunu jukko la wane daal waaye tamit nee na jukko boobu ñuy jël di ko yóbbuwaat. nañ ko bàyyi fii biir Sénégal te xam ne demul feneen sunu jikko bi ñu rek ñu ñoo ko yor donc internet yi ñoom ñu ngi koy métti lu baax a baax tey wax ne consulat bi dañ ci jóg dëkk ci lépp loo xam ne ni war nañ ko cee def ngir Sénégal tam mën a sigg ci gox boobu nga xam ne foofu la ñuy représenté malheureusement duñ ko mën a commenté parce que waxtu bi ñu jërale woon euh, jeex na mais mais su pense que wax nga ko sa biir wax laa bu ne dëkk ba nga représenté ngay reflété vraiment